asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di jaar di leen bégee di leen safoo ki ngeen gis dootuñ ko présenté àdduna ñëpp xam nañ ko dañ ko naan asalaamaaleykum yaa boy damay wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax bu baax a baax a baax di ko sant di ko sant di ko sant julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant cheikhul xadim mbakke balla sama sëriñ sama wasila ki nga xam ne moom laay jébbulu mbakke balla mu nangul ma sama taalibe sama yaakaar tey ak ëllëg ah kookoy ahmadu di ko ziar mbakke balla di yeesal sunu njébbal saa su ne waaye di ziar ki fi nekkal cheikhul xadim muy sëñ muntaxa mbakke talaata rek laa ko fekk euh, tib macha allah ziyaare ko am ziar bu neex mbakke balla mu wuy ma nag jàkkaarlook man li ma ko wax mu dégg ko macha allah yal na ko yàlla nangu ah duñu mës a fàtte suñu xarit al Moustapha Sidiqu sëñ Moustapha si njiital Moustachidina wal Moustachidati mhm. ah sama xarit bopp boobu maa ngi koy ziyaare bu baax a baax si Malick di ko jox wàccuwaayam di nuyu nag àdduna bi yëpp di leen sargal ah kontaan nag ci jàkkaarloo bu ma jàkkaarloo ak yow ah, sama doomi bopp ji nga xam ne yaa ngi yëngal eh, Dakar instant <laughs> macha allah. di bu baax baax a baax. tey ñu ñëw fekk la fi ci toogaay bu jekk bi ci muurin bu rafet bi mhm. mais dafa mel ni dañoo gis mhm. beneen Selbé mhm. dëkk bi yëngu lool ci wax ji ci sport ci diggante football ak làmb mu yëngu lool Sadio Mané ñee ngi naan ballon d'or ñi naan du ko am ñu ne Tata bi moom loolu lan la ci wax ak lu mu ci gis lan la. waaw di ci gën sant yàlla buñ ma koy laaj jamono yële gisuma woon dara waaye yàlla def na talaate bii ñu génn nii bi ma demee Touba ziare gi sama sëriñ bi Cheikhul Khadim Mbacké Balla Aïssa. Mhm. sëñ Fallu ndax yàlla daf may won euh, sëñ Saaliw laa njëkk a gis ci même weer gisaat sëñ Fallu mu taxaw Mbacké Balla. ndeysaan ak mantu bu mu sol noonu. maraan yii xaaral ma daw dem Touba. Mm-hmm. ma demee Touba dugg barabu Seexul Xaddim Mbacke Balaye sa ziar ba kontaan. Mm-hmm. maa ngi nuyu sëñ Mbaye am di Bousso sama xarit bi sama papa sama xarit. Mm-hmm. macha allah nuyu ko ba pare ziar ba pare dem ci barabu sëñ sëñ Saaliw barabu sëñ Fàllu ziar ba pare. léegi nag ci laa ñëw bi ma ñëwee daal di tëdd. ah yàlla woon ma Sadio maane ndax boobu ba gisuma ko woon damaa amoon yéene ci moom rek pour Ballon door ndax liggéey na ko. am ci moom yéene ndax sénégalais sénégalais bi mu doon ma doonub sénégalais ñu bokk réew mi macha allah ah mhm. far sunu borom nag dog maa won nag Sadio Mané. Mhm. lu mel ni taabal daal lañ teg mu taxaw ci rek maanaam nit ñi wër ko lool nag. nit ñi wër ko di yuuxu di tàccoo. Mhm. ah ma am yaakaar. ci yàlla. Mm-hmm. ni incha allahu rabbi Sadio Mané dina am ballon door incha allahu rabbi am nañ ci yaakaar ci sunu borom su fekkonte ni gisuma woon nit ñi sang ko noonu nit ñi bëri ci moom. Mm-hmm. ñi di tàccu. Mm-hmm. Ah, jublu ko wallahi azim ah, duma ko mën a assuré waaye am naa yaakaar ci sama borom mi nga xam ne moom may won ne Sadio maane dina am ballon door tey tamit balaa ngeen ñëw damaa fatu woon damaa génn tuuti rek ngeen yegg si. Mm-hmm. Ah, bi may bi may nelaw di dallu nii ci àjjuma ji rek gis naa mu yere bal di ko tël nii kan Sadio waaw mais tànk yi lonk na ndeysaan <laughs> ah allah moom ballon d'or d'Afrique wala Europe ah ah xaw ma ne xam nga man yooyu xaw ma ko ndax man li tax may wax ci football mm-hmm. maanaam mooy sama réew mii di football rek moo tax mm-hmm. yeneen équipe bi suñ ma ko tegalee ma xam leen mën naa faa dem di wax naan comme ni ma koy waxee kii mooy dóor kii mën naa ko mën naa ko tey bés ma bés euh, équipe euh, euh, Europe jëloon mën naa koo taxaw ba mu dem final. Mm-hmm. yàlla rek a yor nag. Mm-hmm. waaw buñ leen di dóor dama leen wax dañ leen di dóor. waaw bu ñoom bu ñuy gañee dama leen di wax. mais sama réew mii moo tax may wax ci football. Mm-hmm. ndax depuis deux mille deux booba xam naa waaye aw moon yoon bu ma waxee ndax xaw ma xaw moon ban wan yoon laay jaar. dëgg la mais bi ma xàmmee xam yoon wi may jaar macha allah. Mhm. ah léegi na ci laa commencé wax ñëpp di ma dégg. waaw di ma di ma déglu it waaye Sadio Mané daal am naa yaakaar ci yàlla sama borom sunu borom wallahi alazim am naa ci yaakaar ne dina am. ballon d'or incha allah léegi lu tax euh, yaa Selbé bu gisee dara du ko ragal a wax. <laughs> waaw mais xam nga yàlla yàlla rek fi nekk papa. Mhm. dañ maa wax loo rek damay wax mm-hmm. wax ji dafa jomma sax sama famille waaye yàlla ma ko sédde ma judduwaale ko doon xale bu ndaw naan papa li may xew papa xoolal lii ñu daan dañ ma doon sëlëm pour wàññi sama voyance bi ma nekkee xale waaw dañ ma doon sëlëm sama waajuru góor xam nga papaam séeréer la ñoom ay séeréer lañu sama waajuru jigéen moo doon naaru kajoor maanaam mais sëlëm nañ ma ba sonn waaye lu yàlla nekkul moom ndax yëf yi du téere du dan du laar dañuy roy ci ñu baax ñii rek nga xam ne alquran rek lañu jëfandikoo maanaam mus ñoo yore laar mus ñoo yore béjjën hmm? nattu rek bu ma suñu borom teg su ma ko bañee hmm, mun naa am mu dem ci sama njaboot te bari léew ma moo tax ma nangu ko ah, fit moom dañ koo judduwaale ragaluñ duñu ay ragal daal waaw loolu leer na ay satu buur lañ maanaam biomaat jarul ragal daal. waaw mm. <laughs> buur. waaw ay tax buur. waaw <laughs> ah, xam nga saa su nekk nag li tax duñ nangoo toog toogaayu buur. dañ di ay murit. li tax ñu ne tuubaa li abdin muridin saadiqin la humu bi xidmatin aw li xubbin aw hadiya ak dal rek bala Bàlla mënoon naa yëngu. dëgg la waaye yënguwut looloo tax dañuy dal rek. ndeysaan ndax dañ tedd ñu wane ne ñun ay sotu buur lañu wala ci famille lii la ñu bokk wala bee wala bee déedéet. man daal équipe nationale buy joué. waaw luñ ma waxul turi mbay Mbaye Sarr génnoon na ren ci match yi xam nga xam nga ki yoon na. Mhm. waaw Mbaye Sarr moom jotoon nañ ma wax. Mbaye Ismaïla Sarr. is waaw Ismaïla Ismaïla waaw waaw Ismaïla Sarr moom jotoon nañ ma wax ci ci kii yi mhm. ci demi finale xaw ma quart de finale mhm. wax nañ ma Ismaïla Sarr mhm. tudd tuddal nañ ma turu Ismaïla saar ak Sadio Mané waxal nañ ma ko ci mais keneen ki nga wax xaw ma ko sax Mbaye Niang yàlla xam na ne boo ma la nga le woon eh, eh, équipe nationale yi <laughs> ñu ma de barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sadio Mané daal laa ci sepp ne xam naa ne kii mooy Sadio Mané. ko ñi si des ñëw xamoo leen. xaw ma seen tur. politique bi yéen journaliste yi bu ma ci kenn laajati affaire politique ndax yabeel mi ngi ciy commencé am ak <coughs> maanaam ma troisième mandat Macky ñëwagul am na ñu may sonal. te wallahi kilifa ga ko jiite. du yore téléphone woo kenn di ko tëkku. Selbé nag du bëgg kenn wala ñu ko ci kenn ba ma wax loo xam ne gisuma ko ki nga xam ne moom laa wax mayuma dërëm jëndaluma kër mayuma oto dégg na may ñaan oto mayuma oto yóbbuwul sama doom mu tukki dimbalewuma ci dara <laughs> bu mu tax kenn jël xalimaam di ma xaatim mandat Macky Sall moo taxoon deuxième mandat moo tax mu taxoon ay sëriñ gis ngeen ko ci internet bi ñëw fii sama kër gi lu ma ci waay bindal xaatim rek ëllëg yow man xiyaam dinañ ko layoo buguma wax nak, ndax joxna ñepp ñëpp cër ka tax ñuy wax nak bëgg na ko ndax doomu aadama la day wër day day day ut rew mi rek. waaw ni ñi amé rew mi sàkk ko ba ut ko bu yàq bu ko yalla dogalé momit mën na dem ba am ko keneen mën na dem ba am ko man mi di wax ak ñom bu ma sañon nit ca ca fotay be Macky Sall tok laay tok jité Sénégal waaw. kenn ku ne bo bëggé lu baax ba nga jité sam rew kon man jamm la bëgg sama rew ak salam te ñuy dal rek bàyyee sunu borom. macha allah waaw. macha allah di gërëm ñëpp di sant ñëpp. ah di balu ñëpp it di bal ñëpp ndax Selbé moom faaw rek muy baale. faaw ñuy jéggale. ndeysaan ndax ndegam Cheikhul Khadim mooy sama sëriñ. ndeysaan te mu wóor. Mhm. ma jébbalu ci moom. ndeysaan ne ko mbakki aslamtu na si jàpp ca ca barrière am bee. ndeysaan ah. si sama noppam ndeyjoor bii mu ne ma udd xul ma dégg ko si sama noppam ndeyjoor bii su ma ne woon uxuruj ma daw. Mhm. waaye udxul la ma wax mhm. ndegam moom mooy jéggale kon man su nekkee wóor na wér na mhm. leer na ne man taalibe cheikhul xadim laa ndeysaan jéggal naa ñépp macha allah te man it maa ngi sàkku ñu ñu jéggal ma bu nekkee daa am kenn ku ma ca tooñ mhm. maa ngi jéggalu tey ziar allay malik allay malik ndeysaan sa xarit waaw ziar yow wax dëgg yàlla ñu ngi lay ñaanal bul jógee nag Dakar instant yow